enfin bëgg a wax rek bala may terminer ci ñaari point yu am solo moy ay priorités stratégiques yo xamné énumérer énuméré aussi moy la valorisation des ressources culturelles nationales ah lolu lu am solo la parce que culture mom moy déterminer ñun ñoy kan et on a une culture extrêmement riche au Sénégal Il dem ci réew mi culture lu am solo la ma japp ni ñu ko capitaliser ni ko valoriser des na ba léegi ah ñun nak ci suñu programme nit ak natangé nous voulons remettre la culture au cœur du processus de développement les industries euh, industries culturelles nek na lo xam rew réew tay sen développement ci lool lañ ko basé ku dem nigeria di nga gis Nollywood ku dem Inde di nga gis Bollywood ku dem États-Unis di nga gis Hollywood ak yenen ak yenen industrie du cinéma nek na lo xam rew il faut que yoyu nga mën ci liggéey et xalé yi ñu ngi liggéey liggéey yu am am solo cinéma théâtre Et loolu ku leen dina Sénégal mën une vitrine du cinéma africain Sénégal est une vitrine du théâtre africain te loolu état du Sénégal am na responsabilité bu injecter des ressources conséquentes ci domaine bobu ba nga xamné ne dinañ ko mëna a dinañ ko mëna valoriser mais surtout suñu peintres suñu artistes yi di liggéey liggéey bu am solo té diko def dans des conditions extrêmement difficiles le théâtre aujourd'hui est mort au Sénégal la danse est est morte au Sénégal liñu fi amone ci ay troupes yo xamné yu am solo la doon représenter Sénégal à travers le monde troupes yoyu tay bo gi démé gis nga ni amatuñu moyens yi nga xamné mom lañu amone autant pour mener pour mener liguer. Bon dans les régions région bu la région de Louga ku xam Louga c'est le cœur de la culture sénégalaise le njàmbur ak ses richesses culturelles mais jàpp ne tey Louga jaadoul ñu ne Louga amul sax salle de spectacle bo xam ku bëgg produire war nga fa mën produire donc infrastructure culturelle nek na lo au cœur de notre programme bëgg nañu région bu ou wala département bu nek nous créer créé une infrastructure culturelle qui nous booster à créer cadre la jeunesse la pour euh, raviver un peu cette flamme là de la culture sénégalaise mais à travers le monde aussi dafa am artistes musiciens des ambassadeurs du Sénégal à l'étranger Nous, bëgg nañu liggéey ak ñoom surtout les musiciens les artistes euh, que ce soit dans tous les domaines les écoles écoles yu ñu fi école des arts mu nekk ci situation yu difficile ma japp ne yoyu il faut que l'État du Sénégal mën ci crée loxo créer ay écoles de dernière génération yo xamné dinañ ci euh, dinañ muccu ayib euh, nit ñi dinañ ci former dans le domaine de la culture dans le domaine de l'art dans le domaine de la musique ak y yenen un aspect culturel yo ah, Japonais nañ ni Sénégal soxla na pour mener a songu pour mener' dans le monde mu culture et en parlant de notre culture dans le monde nous envisageons en tout cas suñu ambassade à travers notre diplomatie de faire la promotion de notre culture la culture sénégalaise Nous na ñu créer ay centres culturels sénégalais wala des maisons de la culture du Sénégal un peu partout dans le monde faut que que artistes yi ñi nga xam dañu art dinañ mën di véhiculer culture euh, dans le monde ba nit ñi Sénégal puissent découvrir sunu culture donc dal di wax ni culture ci sunu programme nek na lu am solo ah bëgg nañ ko vraiment gëna vulgariser mais surtout pour ñu vulgariser ko pour ñu gën redynamiser il faut que ñu wut ay moyens conséquents yo xam dañ ko mais surtout ñu travailler aussi euh, la main dans la main avec les acteurs de la culture et loolu ma vous donne rendez-vous Inch'Allah, pour sénégalais yi j'ai un travail énorme que je voudrais faire avec les acteurs de la culture du Sénégal